atelier bi ñu ñëw tey ci wàllu formation la ci li ñu tuddee fiche technique dafay ay dañu tënk dañu tënk euh, suñu sunu résultat de recherche dañ ko tënk ci ay dañ ko tënk ci ay këyit yi nga xamante ne moom lañu la ñuy jox producteurs yi pour que ñu appliquer ko ci terrain bi ñu jëfandikoo ko ci seen wàllum activité waaw ci wàllu liggéey bi. tey jii wax nga ko sànq lu jëm nag ci wàllu utilisation bi ñu utiliser maanaam euh, pesticide bi. waaw parce que loolu aussi am na gàllankoor bu baax nga jëm ci wàllu meññeef bi waaw waaw parce que man xam naa ne ci sama domaine bopp ci wàllu suuf xam naa ne am na ay ay ay ay ay études ay gëstu yu ñu def. ay tooke yu ñu si gis. Mhm. tooke yu ëpp dayo yu ñu remarqué si wàllu chocomel am na ñoo xam ne léegi nee nañ sax ñemewuñu lekk chocomel ndax dafa bari pesticide yi ñuy utiliser et je crois que na serait-ce que loolu kaawu chocomel laa joxe mais je crois que producteur war nañ xoolaat bu baax a baax nu ñuy jëfandikoo pesticide muy insecticide muy nématicide muy yeneen ak yeneen loolu volet la bu important bi nga xamante ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dafa am ay gàllankoor yu muy jur waaw ci wàllu ci wàllu santé mhm. ci wàllu environnement donc pesticides yi ñëpp xam nañ ne baaxul xëy na ñu ngi suñu kër yi parce que am mbóot sa kër di nga utiliser pesticide waaye tamit ku am problème ci sa tool nga utiliser pesticide mais pesticide bi dafa war a correspondre ak sa problème bu fekkente ne maladie nga am am na pesticide yu ci wax maladie bu fekkente ne insecte nga am bu fekkente ne criquet nga am am na ay insecticide yoo xamante ne ñoo gën a adapté ko loolu